boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu def cloche bi foo leen mën a ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo waay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 suma salaatu wasalaamu abadan ala man anqasana min alxusraani wal irmaan xatta salaka bina maxyaxan yudxiluna aljinaan wa yunajjina min anniiraan wa ala alihi wa sahbi sawil firsaan wa man tabihum bi isaanin ila yawmi diini min lisilwal jaan ama baadu xamal ma xam-xam bi fi yow jàngal ma te lu ma def bu dee mooy jéggal ma wubbil ma wuntu yeme wey tijjil ma te bépp bunt bu ma dox tëjal ma te bërëkët bu may lëjal jàggil ma bu nee nërëm buy bëgg a jóg joggil ma te mbër mu may bëgg a rañaan jattal ma yokkal ma saafan wi mu wéy féqal ma loo nataloon sa gaay wéy nottil ma loo naraloon gaa yi fi des sottil ma sëriñ bi ngir yàlla sarax musal ma te bul ma xomp jéexaloo naddil ma saree ju neex ji tee nga far reexal ma wan ma saxaar kanam bi far muuñal ma foo jublu yàlla jublu foofa mbër ma foo dëddu yàlla sotti foofa mer ma asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi yëkkati nuyoo bu ànd ak ñaan ak siyaara jëme ko ci njabootu Cheikh Ibrahima Sarr borom Njaañ nu jaarale ko ci ki nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima Khalil Sarr mi nga xam ne moo toog ci buntu kër gi nuy ñaan suñu borom bàyyi ko fi lu yàgg lool ak mboolem njaboot gi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw waaye di siyaare nag sëñ Galas Kaltoom bu baax a baax di ko ñaanal fan wu gudd wànd ak wér di siyaare njabootu sëriñ Tuubaa yëpp jaare ko ci Cheikh Mamadou Muntaqa di ñaan suñu borom naal yi mun naa la liggéeyal maamam ci tool bii di toolu diine lislaam mu def ko na mu ko bëggee te lépp ñu ànd ko ak moom di siyaare mboolem bunti kër yi diine lislaam yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi mépp bàyyi woon benn buntu kër mu mel ne kàddu yi yu gàtt lay doon rek ndax dafa xaw a guddi te xat na waaye ki ñuy bëgg a wax ci moom waxtaan ci moom mooy waxtaane alquran rek di Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye waxtaan ci moom mooy waxtaane xam-xam waxtaan ci Cheikh Ibrahima Sarr mooy waxtaane diine lislaam waxtaan ci moom mooy waxtaane yoonu murid waaye waxtaan ci moom it mooy waxtaane sëriñ Touba xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaakaari jaam ñi waaye waxtaan ci moom mooy waxtaan ci yàlla suñ boroom tabaraka wa taala ndax lan jëmm la woon joo xam ne su sa bët ma saa tege ci jëmmam ju tedd sama xel day dellu ci yàlla sa xol dellu ci yàlla waaye soo ma saa dégg kàddoom gu tedd sam xol ak sam xel lépp day dellu ci suñ borom kooku kon waxtaane ko génnul waxtaane yàlla suñ boroom waaye mu doon nag murit bu jeex tàkk ci Serigne Touba ci sob ak ak wóolu ak ak doyloo liggéey ko liggéey bu rëy bu fees dell àdduna fees dell alaaxira ba Serigne Touba gërëm ko ci ab xolam waaye gërëm ko itam ci aw làmmiñam waaye gërëm ko itam ci ak xalimaam kooku mooy Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ borom jasaaka xam ngeen ne su sunu delluwaatee ci histoire soxna ja xam ngeen ne ki ko jëkkoon a yor mooy sëñ Mbàkke Anta mi nga xam ne moo doon taawab mambal taaw sëñ Mamar Anta Sali sëñ Mbàkke Anta mi doon taawab sëñ Mamar Anta Sali moo jëkk a yor soxna ja Touré waaye bi mu ko yoree ab diir ñu nekk Pataar Pataar soriwu fi lool bi ñu fa nekkee ab diir nag sëñ Mbàkke Anta xëy benn bés dem ci sëñ Mamar Anta Sali ne ko dama laa soxla woon mu ne ko bismillah mu daal di ñëw sukk fi moom nuyu ko ba noppi ne ko yitte ji day mooy maag sabarka jii di Ahmadou Bamba ci adduna damay dem bàyyi ko fi ndax asabaan mënta boole ñaari jant kon nag damay dem bàyyi ko fi ndax mooy sama rak sëñ Mamar Sëli ne ko li ngay wax lu mu mu ne ko loolu rek laa doon wax Mbakke mooy yitte ji du leneen mu ne ko loolu ëpp naa wax mu ne ko loolu rek laa doon wax Mbakke mu daal di dem bi mu demee ca suba sa mu daal di mel ni ku si buru daal di wàcc ab liggéey ñu daal di koy denc njaañ moo tax soo demee ca xas dëgg sëñ Moussa Ka gi mu defal soxna Faati Dia mi taawu sëñ Touba ca lay wax naan keroog la xëy na bàyyi ba ñaaru jant tañu ci seen asabaaw dum lante seereel ne dem naa man banaa fi bamba ak la mu xam maa ngi dëkkeek yonnen ba guddi keroog la njool ma daal di faatu bàyyi mbor ko foofa ñoo ko yaatu ñu daal di fab soxna sa jox seex bamba ne leen suñu nopp doonay yonnen ba seex bamba taawloo foofa soxna fayti ja sayid ni say bindul murtaja wax jile seex mbakki bu sooma ko waxoon rahimahullahu keroog laa ko bindoon bi nga xamee nag ne bi nga xamee nag ne yor na soxna ja ture ba am ci soxna Faati Ja daal di naan saa jox na ma ndigal ne naa ko jox sama rakk ñu ne ko jan rakk mu ne sëñ Mbàkke soxna mooy doomi sëñ Abdou Khadir Mbàkke ma nga xam ne moom la ceddo ya rayoon moom itam euh, ca wetu Ngaabu ceddo yaa rayoon waaye nag bàyyi woon na fi doom muy mu ne nag daa ba soxla ku ko ko yóbbul naawel ci jamono yooyee jamono yooyee nga xay moo tàppoog 1882 ci la sëñ Momar Anta Sali wàcc ab liggéey way juru sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mu dëppoog xaama sasin bi gàddaay gi am mi junniy at ak ñetti téeméeri at waaye boobu sëriñ Tuubaa mi ngi am ñaar fukki at ak juróom-ñeenti at ak benn weer ndax xam ngeen ne sëñ Momar Anta Sali ñaar fukki fan ak juróom-ñeent di bésab talaata la dellu ci boroomam ci tam xarit te tam mooy boppu atu jullit loolu moo tax bu at ma jeexee nag mooy doon fanweeri ati Cheikh Ahmad Bamba xaadim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaakaari jàmm ñi bi nga xamee nag na yàlla dogal na soxna ja Touré moomu sëñ Tuubaa yewi ko ne nag nañ ma ko joxal sama rakk di sëñ Mbàkke soxna léegi nag mu bëgg ku ko jëlee foofee ca euh, euh, Mbàkke Kajoor yóbbu ko naawel jox ko sëñ bu soobe ndax booba sëñ bu soobe ma nga naawel waaye ñoom ña nga Mbàkke Kajoor soo seetee nag diggante naawel ak Mbàkke Kajoor sori na ay boo xam ne benn sori soriwaay bu ni toll maanaam mu ni su koo gis waaye ku sëñ Tuubaa wax ngir nga yóbbul ko soxna si nga ne ko su ma ko defee damay jël bind ndax diggante bi daa soree su ma ko defee damay jël bind ndax booba jàng rek lañ xam te moom lañ xew waaye Cheikh Ibra Sarr Njaañ borom jasaaka mi ngi toog rek <coughs> di déglu waaye ndigal li ak si ci moom ba yàgg moom mu jógal boppam nag dem ba ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul ne ko dégg naa looy santaane. waaye nag santaane gi man daa agsiwut ci man waaye man de boo ma ko santee danaa ko def sëñ tubaa mel ni ku tiit ne nga ne lan mu ne ko boo ma ko santee ma def ko sëñ tubaa ne ko soo ko defee danaa la defal lu gën jël bind soo ko defee danaa la defal lu gën jël bind ñu dal di indi fas wa defar fas wi ci gàttal ba fas wi mel ni mu war a mel wépp Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ dal di laxasaayu ba dëgër dal di tëye dëgëlu fas wi soxna si dal di yéeg mu dimbale ko mu yéeg muy soxna ja Touré mu dal di laxasaayu ngàmbu tarka ji di wommat fas wi jële ko Mbakke Kajoor jëm moom naa naawel waaye di womat fas wi soxna sang ci kaw moom mu di ko womat muy womat fas wi ba àgg wel jox sëñ bu sóobee soxna si wax ko it li ko ci sëriñ bi wax waaye li gën a yéeme nag mooy ba mu wàññi ko dafa wax ne fas wii de ki toogoon ci kaw ki ñu tudd di ko tudd tax na duma ci war te booba nag yoonu murid juddoogul ba muy def loolu sëñ Tuubaa amagul ndigalul jaayante boobu bay xaturil waanu lay amagul boobu amagul waaye Cheikh Ibra noonee mu womate woon Cheikh Ibrahima Sarr noonee mu womate woon fas wa ba dem Mbakke ba jóge Mbakke Kajoor womat ko ba àgg euh, naawil jox ko sëñ bu sóobe noonee la womate waat fas wi fas wi pandang kenn warut ci ko wam ba mu delluwaat ba Mbakke Kajoor waaye ba mu génnee rek néegi Mbakke Kajoor ba muy dem ba mu génnee rek ba mu doxee tuuti rek la ko suñ borom wélal juróom-ñaari asamaan wélal ko juróom-ñaari suuf dara lëntu ko fi loolu nag mel na ne bind rek mënu koo maye loole nag moo tax mu am jasaaka ji jasaaka nag damay wax naan yetti bayit yooyu tarjumaan ji moom rek laay leeral te delloo leen kàddu gi ndax tarjumaan ji li nga xam ne moom la ci sëñ Tuubaa wax kenn koo xam ne euh, sëñ Tuubaa mas na laa wax lu toll noonu amut mooy li ma ubbee ne gërëm na ko ci xolam waaye gërëm na ko ci làmmiñam itam waaye gërëm na ko ci xalibaam auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillahi la si yutil hikmata wa nuura liman yasaaw gannaaw bi mu musuloo seytaane moom Serigne tubaa wax bismillahi rahmaani rahim dafa wax ne mi ngi sant yàlla mi nga xam ne mooy joxe xam-xam ak ikam ak boobu leer ku ko soob alhamdulillahi la si yutil hikmata wa nuura liman yasaaw xam-xam ak ikam ak noor ak ak leer Serigne Touba nee na yàlla moo koy jox ku ko soob ku ko soob rek mu jox la ko. kamaayen si wuma man yasaaw ni nga xamee ne it koy noccee ci ku ko soob ku ko soob it mu xaaj la ko waaye moo koy jox ku ko soob suma salaatu wa salaamu ala miftaahil udaa mu julli ci yonent bi salaa salaam mi nga xam ne mooy buntab jub Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mixlaaqu baab rada mooy tëj buntab alkande waaye bi sabit amaa baax du gannaaw bi mu jullee bi mu sante yàlla julli ci yonent bi salaa alayhi wa sallam mu ne fata ayyatun mu ne lii nag ab nuyoo la fa taiyatun lii ab nuyoo la fa taiyatun lii ab nuyoo la tansilu boo xam ne dana wàcc fi taiyaati ci nuyoo ya man silatu laylatul xadri kem wàccukaayu laylatul xadar nuyoo bu jógee ci sëñ tubaa joom ci Seex Ibra Saar sëñ tubaa ne ko nuyoo bi ni laylatul xadar guddig laylatul xadar ni mu mel ci guddi yi nuyoo bi yi ma la nuyu noonu la mel ci nuyoo yi loolu doy na waar ku xam laylatul xadar muy guddi gi nga xam ne ci la sunu borom fabe alxuraan te lawul mahfuus andi ko ci baytul xissa di néeg bi nu tiim ci asamaan si mu ne ko nuyoo bi ma la nuyoo ni guddi gi laylatul xadara mel ci biir guddi yi ni la nuyoo bi mel ci nuyoo yi man silatu laylatul xadara fi layaali doon la mel ci guddi yi wa salaamun mu ànd ak mucc goo xam ne man silatu fii xayri min kulli salaamin mun silatu baytillaahil araam mucc gi mu àndal itam mi ngi mel ne mucc ak baytilayil araam di néeg ba nga xay ca lañuy ñuy dem di aji màkka mu ne koy noonu la mel fil bu yuuti ci mboolem néeg yi kon nuyoo bi baytilayil araam ak guddig laylatul xadar la boole mu ne ko mu jëm ci yow mu jëm ci yow min abdillahi loolu nag mi ngi tukkee ci abdullahi alxani bi an kulli ma siwa ci ki nga xam ne doyloo na lépp lu lu yàlla rek la doyloo muy ahmadu bnu muhammadu bnu abibulaay muy ahmadu doomi amamar anta seli di abibulaay di doomi am balla ay sax ilal aqi sëkki mu jëm na ci sama mbokk mu ñaw ma wal murid rali yi bu ñu gërëm ba wal xilul wa fii xarit bu matali ba wóllëre ibrahima saar muy ibrahima al lansaaru di ko jug lansaar kaana laahu wa bihi rahimun yawma laa yanfa'u maalun wa laa banuuna illaa man atalaa bi xalbin salim mu jibuuma mu ne li waral nag nga am ñaar yooyu di nuyoo bi indil la ñaar muy laylatul xadar guddig laylatul xadar ak mu ak bayt araam mu ne li waral nag nga am ñaar yooyu an yakuna fii jasmika mu nekk ci sag dogu sag dogu ak sa ak sa wóolu ànd naa ralli naa ankari lan gërëm naa la yow ngërëm loo xam ne laa soxta baax dawoo mer du nekk ci gannaawam mukk ab sànja dootu am ci gannaaw ngërëm li ma la gërëm ab sànja dootu ci ànd mukk kon ngërëm la loo xam ne ab sànja du ca tege mukk mukk mukk mukk mukk waaw kamaa xul naa lakka awalan xablu rujooyi ka na ma la ko waxe woon ca jëkk ba ngay dem di yóbbu soxna sa jëkkës ngay dellu si la ma la waxoon rek min di daa wa inna natlubu min allahi alkarim na nga xam ne noo ngi sàkku fa yàlla may aji tedd ja an yaskura wa yahmada saayana wa sayam mu sant sa sa jëf ak sunuy jëf te gërëm sa jëf ak sunuy jëf na yàlla sant say jëf te gërëm say jëf ak sunuy jëf wa yataxabbal xurbatana te yàlla nangu sag jaamu wa xurbatana ak sunug jaamu yàlla na yàlla nangu sag jaamu nangu it sunug jaamu bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa barakaati asyaaxina awalihim wa axirihim ak barkeb sunuy sëriñ yu jëkk ya ak yu mujj ya wali saalika xultu minal basiid ci loolu nag laa waxe daaj bii nag nga xaye daaju basiid la muy jasaaka yaa xillu ibrahima mawlaaka xayral jasaawu mu naa daarika awlaaka jasaaka yaa xillu jasaaka moom ku ne xam na ne ku la defal la ba nga naan ko yàlla na la yàlla fay yàlla mi nga xam ne mooy aji fay ja yàlla na laa fay moom mi nga xam ne moo na la fay xayral jasaa ngën ji wum naa daar daarika awlaaka tam méngi la ay xéewal ci ñaari kër yëpp faalam bi ànd naka indi sóori leen abadan wa saakari foofa xamal na nag man am nga sama ngërëm faw te lool nag tonowu sa tono rek la tono nag bëggu tag la njëgg jar tono la wa saakari foofa fi dunya wa uxraaka fadum ala sirqi dëggal gi nga ci sax rek dëgg gi nga ne sax ci rek fadum ala sirqi dëgg gi nga xam na ci nga ne na nga ci sax rek wal ixlaas ak sellal gi gënee na nga ci sax mu ta idan nga far lool fi siriwal jëhëri ci lum nëbbu ak lu feeñ kaytan ma musaa yaaka ngir say may di dolleeku rek ci saa su nekk ilhaaqun lii nag ab dabe la matee faratu min al islaahi min al sharhi faltaatina siyaaratan aylan li tadxulu daaru salaam mu ne ko saasoo soo nappee nag ci mbir mi ngay yëwénal mbirum tool yi nga ñëw nag daaru salaam ngir siyaare nga dugg salaam ahmadu bnu muhammadu bnu abi billahi loolu nag laa ne woon danañu ko wax ci Cheikh Ibrahima Sarr borom Jasaaka ndax li nga xam ne lii bëggoon nañ ko cee wax lépp mën mënu mënuñu ko fee wax xaju fi kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp yal na nu su borom bool ba borom jéggal bés bi yal na yàgg lool ngeen taxaw ko ci saay ak ci baatin sëñ Xalil yal na nga ànd yàgg ànd ak sa rakk yi ak sa doom yi ak njaboot yi taalibe yi ngeen taxawu bés bi ci lu yàgg lool ci saay ak ci baatin maa ngi siyaare nag mboolem bokk yi fi teew yëpp sama bokki kër baasin yi maa ngi leen di siyaare am na ci ñoo xay gis naa leen ba doon leen ne allah ji maa leen di siyaare bu baax di siyaare mboolem ñi fi teew ñëpp di leen balu ak di ñaan suñu borom boo leen jéggal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jëtu bi rabbi muxjilal mawji wal yamin bi ma din la si an sa asal fulki kal مرامي وجاتي لرب توجها بعمد وسكر وحولي كان بسكمي مرادي كوني أبدل بخديم من أخاتب بسكر والحفظ حسمي مساياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكن جلت أنيسنا والنسم مقامات خير الخلق أن خير به مقيبة فلتقرأ أن سورة النجم مؤمر المختار لا خلق مثله الإسلام من لولا أمرك لو كمي محمد المعرف مائل ومانع بالاسم مقصوص مسؤول عن الوسم مجيب مجاب مرتد الملك الإداء مبيء ومبوس إلى الحرب والعجم مدين جلانا رجالنا محلل ولي ومصاب من الناس والوامين مدينة علم مرتجا منة لنا جريء ومنجم من سنوب ومن سلم ملاني بنبي كل فاسد وصرت بأبدا خديما بلا خمي من الله رب العرش أبقي صلاة بتسليمي للمستوى المخجل اليمي جزاك يا كل إبراهيم مولاك خير الجزاء ومنى دارك وراقة فلن بيرنا كيندي سوردنا بدن وسكربك في الدنيا وأخراك فاحدم على ترخي والإخلاص مطيلا في الشر والجري كي تنمو مزياك جزاك يا كوم يا كو جاكو تياي بروم سرين بامبالا تن جخلوكو جارا ما سخ سرين سارا هذه سخ سرين سارا bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi alladi hadaana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah subhanahu wa taala nasurukum wa naxtarimukum wa nuxayikum fi haasihi alxarya almubaraka maxruuf bi mox mox mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di siyaara ñoo ngi leen di tatagal ca barab bu tedd bii di barab boobu Seex Sëriñ Saar noo ngi fekk ku nekk fa mu nekk di ko siyaara di ko ndokkeel waaye di ko massaw ndax jamono xat na yitte yi bari na jamono ji tàng na waaye ñun ñi fi dëkk sax ñoo leen ko gën a yëkk fu waay nekk jóge na fa ñëw ngir jëmmi sëriñ bi ak barab bi ak ñoŋal liggéeyub sëriñ Touba ngir sàmm su ko ku fi ñëw ku nekk lii moo la yëkkati ñun ñu ngi leen di siyaare ci loolu ah, ñuy dogal ngant bu baax surafa yi nga xam ñoo nekk suñu gannaaw muy njabootuk sëriñ Touba gi fi ne ak njabootu Seydi Seydi El Hadji Malick Sy ki fi teew ak mbooleeg sangu si tedd jii fi teew ñuy rotal suñu kar ci seeni kanam waaye muy ndigal loo xam ne daf ñoo dab mënuñu koo mënuñoo def lu dul jafe ko muy kilifa yi nga xam ne moom lañuy ñuy bëgg a jotali muy kilifa yi nga xam ne ñoo teew ci barabu tedd bii sëriñ bi am cofeel ak yitte ak yëg ngir jaar ci seeni tur mu lott ci moom lott ci ñun ñu mu ko sant waaye mu ne ngeen feeñal rek seeni yéene ndax ñoom ñi ngeen tudd seeni tur amaana sax gënalu leen te bu ngeen tuddoon kenn ci ñoom mu yóbbaale ñoom ñépp ndax ñoom ci tool bi lañuy xëy ci lañuy gont kon bu fa kenn xëyee rek ñoom ñépp la fa xëyee waaye ñu tënkoon lenn ci ay ay tur di siyaare bu baax euh, kilifa yi fi teew yépp wax nañu ne sëriñ Isxaaqa Mbàkke teew na fi biig waaye sëñ Abdul Karim Mbàkke Abdul Xasiis moom itam teew na fi sëriñ Siidi Mbàkke moom Seex Abdul Ahad yabal na fi rakkam sëriñ Mouhamadan Mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad sëriñ Moustapha Abdoul Ahad moom it yabal na fi taawam sëriñ Modou Mbakke ak njabootum sëriñ Bachirou ak sëriñ Jiili ak seen rakk waaye ku xool tant bi dinga gis ne eh, sëriñ Galas Mbakke Kaltum moom sëriñ Mouhamadul Amin Baara Fadilu mi ngi fi teew jekkal jataay bi lool taaral ko lool ba ngay xam ne laa garwa fi dalik ko xam diggante Cheikh Mouhamadul Fadal ak Cheikh Sëriñ Sarr kon lii kenn du ne lu tax mu teew fi teewaay nga xam ne mel na ne sëriñ mun Muntaqa moo fi teew waaye mel na ne njabootu sëriñ Touba gépp ñoo fi teew sëriñ Abdoul Aziz Mbacke teew na fi délégation waa kër Basine teew na fi waa kër maam Ousmane si sëriñ xalifa si sëriñ Khalifa si waa kër maam osmaan si ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu Baye Serigne Sarr da daan ñëw ci sunu daara kër sëñ Mor Bay ma fekke loolu moom maa fekke kenn nettaliwuma bàyyi sëriñ di waxtaan ak sëñ Mor ñu waxtaan ba yàgg bàyyi sëriñ tàngoor ne sëñ Mor nan génn ci bitti ma won la malaayika bu ñuy génn ci bitti ma di la won malaayika ne ko man bi may gis malaaka yi ñuy jóge ci asamaan di wadd ci kër sëñ Touba gi ci njaareem mu ne ko booba tuuti la ndax xam ngeen ne Baye Serigne Cheikh Ibra Saad da koo tudde sëñ Touba ba noppi mu feram sow mu jox ko ko mu yar ko nee na su ma masaa tëdd nelaw ba asamaan set sëñ Touba mooy jël ak satalaam sotti ci loxoom sëlëm ma mu ne sëlëm gi ma sëñ Touba doon sëlëm nag moo wéll sabab jis xam naa ne ba ma doon jis malaaka yi ni ñuy wàcc ci asamaan di cëppeelu ci biir kër sëñ Tuubaa gi ci njaareem keral loolu la wax sëñ Mor ne ko bu nuy génn ci biti ma di la woon malaayika kooku mooy Baye Serigne Sarr borom ja saaka jërë ngeen jëf loolu mënuma koo ñàkk wax ci Baye Serigne ak leneen ak leneen ak leneen bismillahi rahmaani rahim la hawla wala xawata illa billah alil azim ginnaaw bi ñu santee yàlla ji lu ci yonent bi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci turu madame la maire di jiital ci nuyoo bi sëriñ Touba sëñ Muntaxa di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér di ko ñaanal naal yi mu naal fas ko yéene liggéeyal maamam Cheikhul Khadim yàlla jàppale ko ba àggale yépp boo ko ay rakkam ak mboolem taalibe yi di nuyu di ziar aussi njaboot suñu maam Cheikh Serigne Sarr ca booba sëñ Xalilu Sarr ak ay rakkam madame la maire mu ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara bu baax a baax di rafetlu bés bi di bokk ak yéen bés bi. di nuyu tamit kilifa diine yi fi nekk yëpp comme ni ko sëñ bi waxee sànq lim na délégation yi fi jógee yëpp kon mboolem kuy chef religieux rek ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax waaye tamit di nuyu le préfet de département di nuyu le sous-préfet di nuyu chef service yi fi nekk yëpp euh, di soo gisee tey moom ñëwu fi yaramam moo xaw sutante ndaxte CLD ba moo yéen la woon CDD ba aussi la même chose soo gisee biig ñëwul ngantum biig ba ak ngantul tey bi moo waral gis leen ko biig gis leen ko tey kon buñ pare rek sëñ bi nga gën ko dolli ñaan ndax yaramam dafa xaw sutante lool bu loolu jàllee ñi ngi wax madame maire mu nekk mu ngi wax mention spéciale le commandant bu Koki ndaxte wax dëgg yàlla ku xam na réew mi fi mu toll ak situation yu ñu nekk tey wax dëgg yàlla lu bare bare bare mu koy liggéey ci ci ci ci commune bi lu mu xam am lu yëgul kon mi ngi nee woon bu ñëwee fii na ko sant bu baax a baax a baax a baax di sant mboolem chef service yi di leen wax ne aussi mi ngi sant bu baax a baax a baax mu wax ko ca kanam nee na cant googu moom du tey rek la koy wax mi ngi ko njëkk a wax keroog bi ñu inauguré case euh, de poste bi mux mux ca kanam bu sañoon mbépp village bu nekk ci commune ameen nga jël ci référence ca mux mux ca kanam ndax ku nekk xam na ne ñun ñooy état maanaam ñun population bi ñooy état te li nga xam ne ñoo ko mën suñu bopp nañ ci bañ a xaar état liñ mënut ñu bàyyi kook état kon mux mux ca kanam madame le maire mi ngi leen di sant bu baax a baax sant koo xamante ni am na commencement waaye amul fu mu yem ndaxte lépp loo xamante ni moom war na ko def ci dëkk bi yéen xaaroo leen ko ci non seulement xaaroo leen lu ko ci waaye fu ngeen toll yéen a koy yéen a ngi koy liggéeyal di ko jàppale ci li nga xam ne moom moo fi waroon def yu ci baree baree baree bare kon da leen kon da leen sant bu baax a baax a baax bokk na ci poste de santé bi keroog bi nga xam ne ñu koy inauguré xam na ne li ngeen ci mën a def lépp moom mënu ko def ndax li ko war moom moo ko war Maymuna moo ko war Kër Baasi moo ko feneen ak feneen ak feneen keroog biñ toogee ñu inauguré poste de santé ba pare ñu ne ah lii kat bijou bu toll nii dafa laaj mur de clôture parce que ku nekk xam ne ne bijou bu toll nii boo ko defaree bàyyi ko foofu xëy na mala yi ak yëpp dana fa ñëw ñu ne kon lii dagat il faut ñu def ci mur de clôture bi ñu ko ko yëgee rek lan ah man de moo ma ca kanam dama ciy sawar ndaxte xaar ñu ma ci dara kon naaj ci def ñaari tonni ciment suñu sëriñ bi ba suñu xalil na ko tegal naa ci ñetti tonni ciment moo ma ca kanam ñëw def leneen ak leneen ak leneen ak leneen te suñu transfert la moom la waroon te mënu ko ngeen jàppale ko ci kon mi ne ci sant bu baax a baax a baax yemul foofu chaque année que Dieu fait nee na chaque année chaque année depuis 2022 bi nga xamante ne yàlla teg na ko ci commune bi ak ak ren chaque année ci bu subvention jotee dana génne 300000 francs di ko def ci poste de santé bi maanaam ay médicaments def na ko 2022 def ko 2023 te incha allah ren 2024 bu fonds yi génnee aussi la même chose loolu lépp na ne moo xam waaye nag comme que moom li li mu war a def yéen a koy defal kon moom it du leen seetaan ndax bu leen neexoon ngeen def ko te sans autant ngeen laaj seen avis kon da ngeen xam ne lii moom la war te ngeen xam ne yéen it yéen a bokk dëkk bi ba bu tax ne lépp lu ngeen def ci dëkk bi rek laaj ko si ba ci ba ci ba ci ba ci euh, éclairage public bi ku nekk xam ne compétence ñu transfert commune la mais keroog bi ngeen demee jënd seen i lampe da ngeen déplacé ñëw ba commune ba présenté ko na ah la maire lii ñun ñoo ko jënd ci Moukhmou ca kanam éclairage public ku nekk xam na ne compétence suñu transfert commune yi la waaye nag amuñu droit ñëw fii di fi monter benn lampe te amuñu sa autorisation parce que comme ni ma ko waxee éclairage public moom compétence suñu transfert commune yi mu lu loolu xam ne loolu moo ko doon def non seulement def ngeen ko waaye comprendre ngeen déplacé wu ñëw monté ko wan ko ko na laaj ko autorisation bu leen neexoon monté ko te du ngeen fa ñëw kon itam da ciy kontaan rek ndax moo ko def ngeen ngeen kii ko kon bu ngeen déplacé woo ñëw lu vraiment da cee gën a kontaan ba ci ba ci bërki démb bi nga xamante ne ñaari kii lakk na ñaari ñaari horloge lakk nañ ngeen woo technicien yi mu ñëw xool ko ne ah lii de lépp lépp 700000 lay doon bu leen neexul ngeen defal ko de waaye dañu ko woo naka man le maire une sa participation mu ne leen bu fekkee ne ma ngeen xaar ba ma fàtte son budget 700000 yëpp dama koy dama koy defar ju xaar seen xaalis kees denc leen ko ndax xam ne la ngeen may jëriñ ca ca ca ca ba bari na bi yàlla defee ñu ñëw it alhamdulilah 700 millions épongé na ko ba loolu dugg ci kon daal ñu ngi leen sant di fu mu toll di ko wax di ñaan daal fépp foo xamante ne dëkkan fa muy village la nañ jël référence ci Moukhma ca kanam Sakal def na ko commencé na ko Sakal fan yële ci ginnaaw jël nañ ay lamp ñëw présenté na ko maire kon mu ngi mi ngi ñaan daal lépp lu ngeen man reen bu déwénee ngeen mën lu ko ëpp moom nag ñu ngi jégalu ndax bu sañoon fii day teel a ñëw di raxas di bale di togg di di dalal gan ndax ku nekk xam na ne moom ak muux mu c'était bien avant avant mu nekk maire avant sax borom këram di nekk maire boobu moom xamagul doon sax ndax dina nekk maire lu muux moom wootee bu ci déggee ñëw muy fii muy xel ko muy feneen ak feneen waaye nag bés bi da koo jar ndaxte ki nga xam ne moo tax ñu woote bés bi muy suñ maam Cheikh Serigne saa sànq rek am na lu kilifa gu maggee lim ciy leeral tuuti ndax madame le maire nee nag boo gisee mu gën a sawar ci muux muux dafa am lu ko génn kilifa wax mu ne ko sëñ maam sëñ sëñ sëñ maam sëñ Saar yàlla dafa dogal suñu ci suñu nopp ci ci zaahir suñu maam Cheikhul Khadim moo ko tudd tuddee ko boppam nee na loolu kilifa ak kilifa wax na mu ne yar ko jàngal ko yamul foofu voyage yu bari mu ànd ko ak moom ci Jurbel Mauritanie ainsi de suite nee na yamul foofu mu ne ko li may def ci taal bi yëpp def naa ko ci yow waaye li may def sama njaboot doom yu jur def naa ko ci yow mu ne ko sëñ sëriñ saa maa ngi lay xamal ne loo nekk lu ne ma nekk ci loo song ma sonk ko te man sëñ Tuubaa lu ma song ma daal kon loolu tax na sëñ euh, soxna si am cawtu lool lool ci liggéey bi kon daal lépp lu mu ci deful rek na ngeen xam ne ak ak ñàkk manem la waaye bu sañoon daal lépp lu mu mu wootee parce que ku nekk nag bëgg nga bëgg nga ku nekk nag bëgg nga am am liggéeyal góor yàlla ndax ku liggéeyal ku ku mel ne ku liggéey sëñ Tuubaa ba am ngërëm loolu mu aram képp ku bëgg lu baax war ngaa bu ñu wootee ku lu mel ne moox mu loo man war nga cee def kon daal foofu la ñuy daal suñu kàddu di leen ñaan ngeen gën koo dolli ñaan di ñaan aussi euh, di di ñaan aussi kilifa diini yi ngeen gën a dolli ñaan ci réew mi ndax ku nekk xam na réew mi kat ginnaaw la ko yàlla ci seen loxo la nekk ndax kat yéen bu nit ñi tëddee di nelaw yéen ci kursi yéen ci téere alxuraan yéen ci leneen kon daal duñ guddal suñ kàddu dañuy sant di gërëm di ñaan ngeen gën koo dolli ñaan di ñaanal ki nga xamante ne moo moo jiite famille bi yàlla guddal fanam wéral cëram moo ay rakam ak ay sëtam. Euh, kon damay yëkkati kàddu gi jox ko sëñ Xaadim Jaw mu jot leeral ci mbindu yu sëñ Bay Jaxate mu ni bala ma koy daaray sëñ Seex Ja. ci njiital Seex Ja. ci njiital sëriñ Cheikh Dia ak mbooloo mi mu àndal yépp sëñ Matar Lo naarit yabal na fi délégation jërë ngeen jëf kon sëriñ Xaadim Jaw bisimilah. sëriñ Mbay Jaxate nee sëriñ bi yàlla na nu may ak mucc may nu njariñ ak fan wu gudd ak gu wér tekke nag dinu wis sëriñ Mbay Jaxate nee na sëriñ bi yàlla na nu may ak mucc may nu njariñ ak fan wu gudd akuk wér teg ca nag di nu wis te yàlla na dolli suñuy xéewal te yokk nu ngëm te yokk nuy itte may nu way ci topp ndigal sëriñ Mbay Jaxate nee na muñ ak sant gën lépp loo man di def nangay ngay sant kay muñ tawat nag ba ko na ngay sant xéewal di muñ jépp lor ngirum gaay yàllaa ngi nii sóobu ko amaanaa nga gis gaa yi ñuy reeka bég di sooxaale ay lor yu dul teggiku sëriñ Mbay Jaxate nee na lu yàlla defa xejjam ya faw mu daldi am te lëf du ko tee am lépp luy tee mu am du am lu buur ak ñoñom booloo ne liikat na sotti tey ku am xel dangay ngay bég nag ca loolee tafar ca jëm sëriñ bay Jaxate nee na ku bañ gàcce bañ wéetaay akub coono lépp lëf lu buur ak ñoñam wax doo ca teg lëf lu dul ngërëm sëriñ bay Jaxate nee na ku xam yàlla foo gis yàlla jëm fa nga far fa jëm mu noppal la may loo tagg sant la jox la ndam sëriñ bay Jaxate nee na ku gàntu ndigal day sonn sonle xelam gëlëm ku nangu ndigal doo sonn doo sonle doo gëlëm moo tax mu ne lu ñuy digle ak mboolem lu ñuy wax akay dogal ci mboolem suñuy biir yàlla na neexe fi nun ne lem cant googu mu ñu digal nag te kuy dox ku ne xel mu dal ak xol bu sedd rek nga bëgg sëriñ Mbay Jaxate nee na Bàmbaa ma yar may ma xam-xam ak alal ju ma lew saa wax yi duy fenn man xam naa ne fenn daganul koo xam ne nee na murit la mbaa mu fas ko na jóg di déglu wax yi la may wax ndax mu làq ngërëm ku bëggul lu dul yàlla ak raw lu bon na def yi bayit ci xolam ak jibaam sëriñ bay Jaxate nee na yàllaa ngi yor lépp lu jaamam di bëgg ko wut nan waxtaan déglu sëñ bay jaxate nee na duma ma wax lu sëñ bamba waxut sëñ bamba du wax lu yàlla waxut bamba ma yar may ma xam-xam ak alal ju ma lew saa wax yi duy ne man xam naa ne fenn daganul sëriñ bay jaxate mi ngi dàq ci xol yi coono bi nga xam ne mooy sonal nit àdduna ak àllaaxira coono bi yàlla bind ci nun banaan la xadd xalax naan insaana fii kabadin coono bu yomba dind la boo toogee ba yàgg boo sonnee boo jógee taxaw mu deñ boo yenoo boo yenni koo mu deñ coono yi sonle àddina ak àllaaxira juróom-ñaari coono la yàlla ñu ci yàlla musal sëñ bay jaxat def na ci fukki bayit ak ñaar nañ ko déglu ndax ñu jariñoo ndax sunu jataay wër ta neex ak dund yombut lu yombul ëpp naa fooye lëf na ngay waxu yiw a koy diglee ko def ak a fas juróom-ñaari coono yi ba ca njëkk sëriñ bay jaxate na mooy xër ci àdduna sàggan ci àllaaxira fàtte yàlla naw sa bopp xeeb say moroom yàkkamti ñaaw njor juróom-ñaari jikku la yoo xam ne ab xolo ko yenu li koy tàggaleeg yow sëriñ bay Jaxate fukki bayit ak ñaar la def sëriñ Mbay Jaxate nee na yàllaa ngi yor lépp lu jaamam di bëgg a ko moo dàq fab loola dal koy jox fa saasa mu yor lottul ci lëf waande mboolem lépp luy xala am sàkkal na koy saaki waxtoo ki sabab yu ko jur mënoon na bis boo jógee yow mii di tàmbali mbay mu dal màggal sa mbay moomee ca bis ba mu ñor mënoon na bis ba a juddoo it nga tol ne sa ndey te dal di tol ne sa baay sëkk nag ba jur mënoon na laa dal di fab yi teg ca aljana jee te xam ne doo dox ci wopp ak deeki tii sa ki lor mënoon na laa daldi di wan firdaw si ak la ca xew mënoon na laa daldi di wan sa mucc xamal la sa mbir te mën na laa dal di dàqu lépp loo gërëmul ngay mucc te foo jëm far di mu ñu far te mën na laa dal di dàqul lépp loo gërëmul ngay mucc kay musle foo jëm far di mbër mu ñu far te mën na laa dal di jox tey jii sa mépp mébét sab xol ne guyu te dootul war a waree naqar te mën na laa fab ci saa sii teg ca kaw ña ca kaw nga mel ni ab jant mboolem ñëpp suufe la far yii yëpp mën na ko mën naa def yu dul yii la yëpp loo gis amul nag da ko soobu te xam ko bu wér bul bëgg nag lu ko soobul bëgg loola du mbir ku bëgg lëf lu ko soobul ñàkk ndam moo si yar njegam da ngay bëgg bëggal yar bu mat bu rafet bëggub yaray mbir wutal ab yar def la la war Mbay Jaxate nee na ku ñàkk ab yar mosub yar fawu ab yar a gën raasal ma ab yar ba gis koo gis nga sëgg te for te lëf du ab yar lu dul sant dogal te gërëm ab atte yàlla na nu for ab yar te jàpp ko yor sëriñ Mbay Jaxate mooy defar am xel akub xol seytaane bala laa mën a dugal ci añaan ak yàkkamteeg ñaaw njort ak xëccoo daf lay fàtteloo sañ-sañub yàlla bi loo la li la yàlla defal waaye fii ak yaa ngi yëg ci sam xel ak sa xol ne yàlla lu mu bëgg mu am kenn mënta tee mu am te lu mu bëgg du am kenn mënta tax mu am fii ak moo ngi te saw saytaane du la mën a dugal lool kon nañuy fàttaliku yàlla buñ ko fàttalikoo rek daal di siy génn yàlla nañ ko fekkewaat ci dërëjey sëriñ Touba te gën koo jekku sëñ maam seex ci teraanga ji ñu defal ñu bokk ko fii ñi ko gis ñëpp ku fi ñëw lu baax rek nga bëgg kenn ku fi am amul suñ bay jaxate day wax ne fokk ñu ñu xam suñ bopp sëriñ Bay Jaxate dafa wax ne lu bon taxul kenn jóg kuy dox di def lu bon it saytaane mbër ma da koo man waaye jub jubluwu ko foo gis ku bon ne ko yal na ni yàlla boole yërëm xamal ni nit amewul boppam de kon mu jubal te sëriñ Bay Jaxate nee na nit ak naweteyam mujj ga a ci am solo sëriñ Bay Jaxate na mur yëpp a ngi mel ne gàncax gu sax te gàncax xamul ak mu jëm kët murit te gàncax amaanaa mu jóg neex a gis maral jog dog ko jëkku ñoram yow muri naa nga gis gàncax it jóg wayaf te naataange far dof dab ko waarul murit la ngay mujje yàllaa ko xam moo xamit keneen nit la muy mujje waarul murit bàyyil yab nit ak dox di xeeb ay mbiram amaanaa nga yab ko mutoo ko murit sëriñ bay jaxat ne na ku tàbbi nawet kat te góobul ba ngar ba farmaam ko doo xam la ngay am murit ku déegul lu xam-xam du xam ay mbiram na ngay muslu foo toll am ndog murit na ngay tuub ak ay yeesalu njëbbalit di xeebit sa jëf yëpp ak sa murit sëriñ bay nee na ku xeebul jëfam dal di naw ay jëfam te ku naw ay jëfam dal di set ci murit te sa jëf boo ko dee naw dangaa ngaa fàtte kon ne yàllaa la sàkk ak sa jëf yee murit ndax sëñ bay jaxatee nga naa ko mënoon nga maa wàcc bañ maa sàkk mooy ku amul mënoon nga maa sàkk def ma ceddo mooy ku gëmul mënoon nga maa sàkk def ma luu bu sel ma xa tëx mënoon nga maa sàkk def ma rab wu dee fi fetal mënoon nga maa def ku dul tàggoo ki wopp ki boor mënoon nga maa def ku ñuy xañ baa la koy doya dal mënoon nga maa def ku ñuy wóoloo ko wóoloo di koo ko joxoñ mënoon nga maa def ku ñuy suufee la koy doya dal sant Cheikh Abdoulaat moo waxoon ne bala ngaa sant da wax ki ngay sant ñu xam ne moom ngay sant waaye buñ ko xamee ba noppi da koy wax liñ koy sant kon yàlla lii loolu defal yàlla buñ ko fàtte ci dërëjey Serigne Touba moo ñu may liñ bëgg àdduna ak àllaaxira yàlla nañ fi dajewaat te gën ko jekk ci dërëjey Serigne bi li yéene woon xaju di ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare si bisub suñu sang bi Cheikh Serigne Sarr ci ndigalu taalibe yépp nag yi nga xam ni seen bàyyi ak seen imaam ñoo àndoon ak Cheikh wa Sarr ànd ak Cheikh Sëriñ Sarr ñun taalibe yi ñu ngi sant njabootu Cheikh Ayma Sarr gépp di nga sant yi njabootu Cheikh Sëriñ Sarr gépp waaye nag di sant sëñ xalit mi nga xam ne mooy kilifa kër Cheikh Sëriñ Sarr ak naa yi ba mii di sëñ maam Cheikh ak ñu war a njabootu Cheikh Sëriñ gépp xam nañ ne xen da siggil ngeen seen bàyyi sagal ngeen seen bàyyi sagal ngeen dëkk bi waaye ñun taalibe yi àdd ak yéen dey fas nañ yéene laxasaayu ànd ak ñooñu ànd woon seen maam ànd suñu maam àndoonoo seen maam suñu baay àndoonoo seen baay fa ca nekk ci ndigal xam ne que ni am ngeen di sëriñ waaye ne gi suñu sëriñ la suñu wàggalu sëriñ la ñoo ko moom la ñu ci am nag mooy waxtu ne doon leen sant gërëm leen ndax yéen a ñuy soñu ci liggéey ak jaamu yàlla ak fëcci ne yaakaar seex sëriñ Saar ak dogal àllaaxira yàlla daf yàlla yàggal seex Xaalid Saar taaliba yi nañ leen góorgóorlu suñu kër gi amuñu may loom suñu ma daa gàddaa yoon ànd ak seex ñun ñi ñëpp amuñu lu Cheikh Ayma Sarr foto bee dong wandaa joxe yéen sëñ Ibrahima Diop mi mooy saa baay moom la Cheikh Fa Sarr njëkk am ci tóor doo ci àdduna Cheikh Fa Sarr ko tudd tudd ko tudd ko boppam bàyyi sëñ Sarr mais sëñ Tuubaa ko tudd ko tudd ko boppam kon ñun ni ñu ànd xam nañ ko kon ni ñu ànd duñ ci jóg àdduna duñ ci jóg àllaaxira yàlla nañu yàlla fee Cheikh sëñ Sarr wasalaamaaleykum wa rahmatulahi maa ngi nuyu sëriñ Cheikh Khalil Sarr ak njabootam yëpp di nuyu Euh, kilifa diine yëpp ñu fi teew ak chef de service yi ñu bokkoon ci sama délégation maa ngi nuyu monsieur le sous-préfet de l'arrondissement euh, de Koki ak adjoint am euh, di leen nuyu ci tour son excellence monsieur le président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye di leen nuyu ci turu ci premier ministre monsieur Ousmane Sonko ci turu monsieur le ministre de l'intérieur Jean-Baptiste Tine dem jikki suñu kilifa bi régional bi gouverneur de région madame Ndeye Nguénar Mbodj ak sama kilifa euh, muy madame le préfet du département de luga madame Mour Manga franchement euh, di leen wax ni mux euh, mux ci man ma ci sama histoire personnelle la bokk parce que ginnaaw bu ma jëloon euh, service daaw le 24 avril 2023 euh, sama première sortie fii la woon Mokh Mokh je pense que daaw su préfet présenté na ma fii mooy euh, c'était le 29 avril 2023 su ma juumul donc Mokh Mokh chance la ci man maa ngi vraiment daal gërëm di sant Serigne Cheikh kii Serigne Khalil Aydara kii kii Sarr ak n'est-ce pas Serigne Cheikh Sarr ak euh, kilifa dina ah Cheikh Mame Cheikh Sarr ok donc euh, di euh, baalu ak ci wekki bi julli passé bi korité bi baal naa leen yàlla na la boole baal ak fekk ay déwén yu bëri donc sama wax du du sore di leen wax ni service yi ñu fi teew pour liggéey ginnaaw ñu def CDD lépp loo xamante ne euh, am na manquement ñu ngi leen di franchement bal parce que euh, comme yéen ñëpp xam ngeen euh, élection leen defoon ci mois passé yi après élection yi bëggoon nañ def CRD bi teel mais jafe-jafe ak organisation yi donc moo tax teelu ñu def CRD mais incha allah année prochaine su neexee yàlla donc dañu koy teel def ñu génn ko organiser mu gën a baax n'est-ce pas manquement yëpp ñu fi am donc ñu corriger ko donc loolu laa amul ma wax donc maa ngi jégalu. bu baax baax ci wolof bi leerul salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. bismillahi rahmaani rahiim. الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم إِنَّ الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون sadaqallaahul aziim jazaaka yaa xillu Ibrahima mawlaaka xayral jazaa wa muna daarayka awlaaka jazaaka yaa xillu Ibrahima mawlaaka خير الجزا ومنى الداريك أولاك فاعلم بأنك عندي ذو رضا أبدا وذاك ربحك في دنياك وأخراك فادم على الصدق والإخلاص مجتهدا فادم على الصدق والإخلاص مجتهدا في السر والجهر كي تنمو مزاياك mu mel ni nag dañuy yëkkati kàddu gi jox ko kenn ci njaboot gi muy sëriñ maam Cheikh Sarr di koo xam ni lépp lu muy yëkkati di ko def ci ndigal rek la koy def képp kuy defal ndigal nag képp kuy def ci ndigal nag na nga xam ni daa digloo ndax mooy waral ngay dégg ndigal waaye li wér te wér mooy magam ju baax jaa ngi nii toog yàlla na ko yàlla sama borom yàggal ci kanam njaboot gi waaye ñoo ngi rafetlu sëriñ Mamoun saar mi ci taalibe gu rafet gi kenn du ko dégg mu ngi toog rek lem ay tànkam di diglu magam ji ah te loolu da ko ak rakkam yi yàlla na yàgg waaye sëriñ bi kii di bëgg a wax as gor la kii di bëgg a wax ab jullit la kii di bëgg a wax ab bi la waaye kii di bëgg a wax fenn ko ñor kenn ko ñor muy mux-mux bañ na ko ba sax bu yoree otoom day wàcce weer yi la tax muy wàcce weer yi daa bëgg a xool lu rafet ba mu indi ko rek mux-mux lu mu gis lu baax mux-mux rek la ko yéene waaye nuy ñaan gis ngeen nag yoon wii yoon wii ñuy jundu ñu junju junju junju muy rang-rang bii ah lu ne mën na fee am de waaye cey ku ko cëppil ci néegub yàlla bii cey ku ko cëppil ci néegub yàlla bii ndaxte mux-mux doon na dëkk boo xam ne si nag lu ne mën na fee am te ku ne mën na ko fee def waaye kenn ku nekk na fexe ba sa loxo dem ci kudd yëpp na kudd la waaye kudd lu su da caa gën ndax day indi ñeex bala ca ma sos ndawal kon nan bàyyeewaat xel bu baax mux-mux mux-mux gi tey ku mux-muxi ba def fi dara di nga xam ne day mux-mux billaay barke borom Tuubaa Mbàkke boo delloo di nga xam ni dëgg-dëgg fépp foo bëggantee dugg di nga mux-muxi ndax la tax ngay mux-muxi na mux-mux def moo tax bala ngaa dugg di mux-muxi kon yàlla na yàlla defal jàmm ci barke Sëriñ Tuubaa boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee fu ñu def cloche foo leen mën ne ci àdduna bi ngir am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo